ahousu billahi min alseytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi ñu defa xasida jëmale ko ci maam si ahmad tijaan si almaktoom sunu soppe xol sunu soppe ruux ñaan yàlla yàll na yàll na yokki leeram te taas ñu si barkeem bismillahi ma soobaat seeti saa soppe deel seeti saa soppe góor gii moo yeyoo jàpp ku peegi cër te daawul bàkku moo baaxi di soppu seex rekk day ak jaamu daa baaxi koo xam ne lum wax bañul ak weddi yàgg dëggal fu laamitam moo di loo xeex-xeexi samp sa xel koo xam ne lum wax bañul ak weddi yàgg dëggal fu laamitam moo di loo xeex-xeexi samp sa xel maam Cheikh Tidiane ku la naw naw naa ko saa maami ku xam cëram doo ko jaawat leeti doo miimi góor gi jaral ma jaral naa ko tenew ko di ndam kii lim fi réussir xajul suy fooyu xel du ko lim xalaatuma fàtte saa maam moo fuuti maak saay moroom ku si jàppaan ruuga day naati kii kii mooy ki moom Sococim seex mi jumaay mbëy si moo ko tabax ba mu mettee seexa am bësi maam seex ajul dara dafa daan karwaatu tey politique teraw na gaa yépp yéene moo di réew mi di jàkk yërëm njaboot du si maasum benn baay daara seex kum joxul cër amul kii moo rafet siira maam Cheikh moom ku ko déggoon yow doo réeri ña amuñ chance wér na saa maam Cheikh moom ku ko déggoon yow doo ñadaako ña amuñ chance wér na saa buuri faydaayu cooroon si biiru mboob si tàngoor yi yombul teraw na bu dee boobu yàlla saa te nit ku xam la mu doonoon xam ne saa buuri moo samp seex tee nga yéen jàmm kii leer def naa ko wéttal fu saaru tollu mag tóomi yaa ko dimaasi ku lay kontar jegek summi siyaare naa la bëggoon naa nekk fay dóori saawaari maam cheikh yi del ñaan lépp nay leer yi dinaa fa waawoon fokk naa bindi yokkaat di leeral fa seex donnam ga mahmuudi moo di maa sori ak sës moo ma tee sonni saa yu nga gi seex ñaani rahmaani lawlaaka lawlaaka lawlaaka lawlaaka yaa tee nu dooni bëndi yaa baaxi li ma jaral rëy na xas naa ñëw te laa maaxi saa ñaw ko yow la ko soppul seexi maa sa gëlëm donnoom ga wér na du maasub gaayam moo ami jom moo tax ñu xàmmee ba duñ jaawatle maam cheikh yi moo nu joxoñ Moustapha bul gantu kiy baax yi bul ñàkk saas weesuwul gis baaxi gantu ndi gël rëy rekkatee réew mi jox lab nopp cëkk xel te réeriwul nag danoo gis lànk say boo fi lankal nga suufi te loo bañ-bañ si ngay boofi maam cheikhi way ko di laal saa góor ga daa baaxi baayu sëriñ baa ngi moote gaay fi jàqi yàllaa ko may dafa ko kennal si yaa xam naa si la ña cokkaas jëruñ miini ku yàqu yàqule moo koy sóoru doo maasi moo roppi njolloori lii daa wér ña am xaasi maam seexi moom la fi daa maajal ne moo teggi ña daa ko di ngat dañoo sellul ne ñoo sikki daa donnu di ngat ne mag tiira nañ ko fetal seex di sa xuus waaye dootun dolli cey wéla xel daa yéeme daa yéeme daa yéeme tistin ci xottu taati ngir duma ya dootun ko dolleeti mag tóom moo faraw gaaya ku weddi xoolal waxam cheikh maa nga xooli jëfam xam ne du maa cheikhi daa raw gaaya laahu la gëm ku fonk yàlla ko jox cër laahu mooy cheikhi naw naa ko naw na ma saaxol cheikha say féexi moo tax ku may wax ku dul cheikh maa ka donn mbiram xam ngeen kamay wax ka dul maas Moustapha Përi moo tënk say mbir ba tax kum dooni dégguma la kii ku ko am déeti jàmbat war na yoon duma la looy kaasi loo tële sak pastéefu lay baase kii ku ko am piir te doo ngi sal yayoo xaasi moo ma dina nal ba dar daa fekk saa xol ba di lëx takk góor gi moo yeyoo jàpp moo doon woon baax ba xëy dem samp fi mbaaxi maam deema nannal ba saa pas-pas di réel maaxi maam deema ñaanal ma dëkkee ngoy ci kër seexi te say sawar di sa jëf luñ nangu xol féexi lii doy na xel xadarab seex roppinam neexi maam Cheikh Tidiane yi desaa am cër bu dul jeexi te def di saa waayi ne maktoom moo di saa yooni moo ma di nannal ne maktoom moo ma teelaani def naa ko wéttal mu def mab soppe xar kanamam gis sëy di seex dafa may suuxat kilee bëli ndam dogal moo waral seex nekk saa soppe fu mu toll cheikh dama say gis moo di saa lamp moo ma di niital ba dara daa feq saa xol ba di lëx-lëxi tàkk góor gii moo yeyoo jàpp dégg yi waxam rekk dafay tax daanu ab jëlli siyaa di sens pire ku am saa góor ga doon nii am naa la xam nga sama xol yaa sa nee cooti maam Cheikh Tidiane da saa jëf moo yeyoo liiti xalaat sa mbir rek dafay tax sotti saay waame saxiin wa daa rëy awaay maktoomi laa jommi saway si yow su koy def fokk muy neexi daqaar du poobar ne góor gii dàq nab laaxi yaa ma jaral dama koo xam seexi doo maasi ku topp seex piir ba seex ñaanal la ngay xaasi yaay taalibeb seex si yaa doon taalibeb daami demawdo mbay si awaay mag toomi laa jommi tabax na dund ku am xel tax na kenn gëlëmul ñu jéem a roy seexi bañ saawaaja lii sëkkanul bañ da di am tegu bañ seex ñàkk na séesi laa biir ga yéeme ne seex kum yar nga am bësi tabeem ga gàcceel na wax set gedd naw satu mbar ay Seydi Seex mii dama jaaxal kilee mën a yar ruuxam nga day yëg ku ko yëg yitte jaa siiwi dem teewuma wane saa soppeel mësul néewi moom xam na xam naa sama naw seexi kenn waxatul yaa ma jaral laahu daa naw seexi may na ko xel na yàlla dolli ko muy kontaani mag toomi saaru di bég sama xol mag tooma koy siimi muhammadun dafa ko naw seexi daawu sa kaf moo tax ma naw ko ku naw saa góor ga mën a kaf siyaare naa leen di leen ñaanal te seen ñaani laay sàkku moo tax ma dëkkee ngoy serax maani du jëf ju baax li ma lamboo bon la yéen a waral buur yàlla rus leen ba tee làpp yéen a ñaan naa borom jàmm ak xéewal si muxtaar yi mook sa yi di seex mii nañuy am jàmm ak leer yi mam Moustapha jërëjëf yaa tee ñu ñeetaani allahuma salli barkeb li rahmaani allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim Moodu moo ko def ci maam Cheikh Ahmad Tidiane si al Maktoum yàlla na yàlla yokki leeram taasi si